mel ni aadi damay sant yàlla rawatina bu ma joxe lu ko gën danaa ko muñ ngir kàddu yooyu danaa ko muñaat lim doon def lim doon lim doon def ba ji boromam maanaam fi mu ko defee ak lim ko defee ak nim ko defee ak nim ko defee ndigalal sëriñam bokk julli tàkkusaan bokk wirdo mu sos ko liggéey dëgg rek ñu ne sa tooma daanu na falaahem loolu daal sant yàlla rek la ku dafa saxi daal kontaan naa baax jërëjëf papa wasalaamaaleykum wa rahmatullah Baye Ada Ndiaye moom waaw xaaral bañ bañ xamante ni moom di sëriñ Habib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 والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ñépp kenn ku ne ci turam ak ci santam gannaaw nuyoo yooyu ñu ngi nangu dogalab yàlla bi dal ci suñ kaw te xam ne kat jullit bu ko yàlla bëggee dëgg dëgg dëgg da koy nattu wax nañu ko ca aaya ba ci wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juuci wa naqsim min al amwaali wal anfusi jii moo dal ci suñ kaw waaye nag lum jeexalee aaya ba wa thamaraati wa bashiri saabiriin kon يالا لم سوخلا تي نون تي جامونو بي موي موغ ندخ ان الله مع الصابرين يالا اندناك موغ كادي تا موغ ناك يونت بي نينا صلى الله عليه وسلم فين كو سوخلا موي فا مبير ما ميتي فوفا لا نكو سوخلا واي توك با نياك بخي نا موغ نا مونيو داغا نياك بخي ba tax na yonent bi neena as-sabru inda sadmati al-ula ba tax na fi tay nga xamne mbir mi metti na lol fii lañu soxlaa muñ kon ñun ñëpp nañ muñ te xam ne aadi mii yàlla ñu ko joxoon te bam ñu koy jox tàgguwut kenn ci ñun bu koy jëlit ab jaamam lay jël du tàggu kenn ci ñun ba tax na kon nañ sant yàlla ci sëñ aadi mii ndaxte kat am na gone yu génn àdduna ba léegi seeni mbokk teguñ leen bët ba léegi seedee luñ leen dara ba léegi julleewuñ leen Taïba Mbayeen gi xam nañ ci dara ak yeneen i dëkk yu mel ni Taïba Mbayeen tanattu boobu dal ci seen kaw kon moom tey jii bu génnee àdduna génnee àdduna ci kër sëriñam wax dëgg yàlla ñu waajal ko ci kër sëriñam ñaanalee ko ci kër sëriñam andi ko ci dëkkab cosaanam mu bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis ndax ku ne xam ne yonent bi altine la génn àdduna nar a fanaani ci biir bàmmeelam bisab altine ci weer wi nga xam ne mooy weeru muharram wax dëgg yàlla loolu doy na yaakaar kum doy wax dëgg yàlla loolu kat kenn ku ne ñaan nga am ko mbooloo mi ko yàlla jox kenn ku ne ñaan nga am ko ba tax na kon ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax tey nangu dogalam tey wax ne xale bii daal liñ koy ñaanal mooy yàlla bu ko gémmiñ jiitu yàlla bu ko gemmi njitu fam jëm yàlla na ko dàqal fi yàlla na mottalee ji ndawam ci aljanna yàlla dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën jaakawe iliyina yàlla dëkk ak Seydina Cheikh radiyallahu anhu ci gën jaakawe iliyina yàlla nañ ko yag ñaanal yag ko saraxal te yàlla jotale ko yol bi yàlla bu gannaawam fitna yàlla bu kanam mom fitna sëñ adi ñing la koy jale bu baaxa baaxa baaxa baax yow ya ñak de yaa ñàkk de ay waajuram de ñàkkuñ ndax am nañ la wax dëgg yàlla mën naa wax ne Aadi Njaay mi tey mooy sab taaw kon tey jii yow yaa ñàkk waaye ay waajuram ay mbokkam ñàkkuñ ba tax na ñu ngi la koy jaale bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaan ci yàlla yàlla may la xolu di ñaan ci yàlla mu uutalal la ku mel ni Aadi Njaay mii tëdd wala ku ko gën te yàlla na yàlla may la ndam ci toolab lislaam bi nga xam ne yaa yal yaa ngi koy bay guddeeg bëccëg yal na yàlla may la wér yokk sa fan yokk sa kattan yokk sa xam-xam yokk sa wërsëg yokk sa lijaaba kàddu yii nag ñu ngi ko doon wax ci ndigalu xalifa bi Maulana Cheikh Tidiane xalifa Niass moom lañu fi teewal ataala allahu umrahu wa umrana amin bi jaahidil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci yàlla képp ku teewe dëj bii yal na yàlla faj sa aajo képp ku fi indi bàkkaar yal na yàlla jéggal la ko képp ko fi andi jàngoro yàlla yàlla saafara ko lii yàlla na fi gëj yàlla na ci mboolem barab yi ci barkeb allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim. Serigne Habib Niass moom moo doon yëkkati kàddu yooyu ñëpp nañ musiibatina na fi musiibatina haasihi waxluf lana xayran minha mu ne baat yu mel nii lañu seyduna muhammad sant sallallahu alayhi wa sallam lu mel nii bu dalee ci sunu kaw ñu wax ko su boobaa lépp lu tiisoon dana woyof su boba lepp lu diisoon dana jeex tak dana jeex tak ci ñun motax ñu ubbe kaddu yoyu motax ñu ubbe kaddu yoyu tofal ci timit tofal ci timit ñu bokku sante yalla ñu bokku ñun ñëpp sante yalla wax rabbil alamin wax alhamdulilahi rabbil alamin sante ko sante go xamne sante yalla sante joya xamne dañ koy joy la ci jëmam ju magga ja dañ koy joyal rek ci jëmam ju magga bañ ko teunk ci dara bañ ko teunk ci dara jàllar bi ku santaat ko. jàllar bi ku santaat ko. sant goo xam ne. sant goo xam ne. dañ koy tënk. dañ koy tënk. ci lim ñu def. ci lim ñu def. ndax moom moo xeeyoo. ndax yàlla moo xeeyoo. bu la defalee nga sant ko. bu la defalee nga sant ko. moom rek tamit moo xeeyoo. moom rek tamit moo xeeyoo. bu la defee nga sant ko. bu defee nga sant ko. ndax li muy def ak li muy defal yëpp. ndax li muy def ak li muy defal yëpp. moom moo ko moom. moom yàlla moo ko moom. dafa ñu ko dénk ba mu yàgg ci suñ loxo rek daf ñu koo dénk ba ndénkaane yàgg suñ loxo rek ñu foog ne ñoo ko moom ñu foog ne ñoo ko moom kon ñu ngi wax alhamdulilah kon ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin ci dogalab yàlla bii ci dogalab yàlla bii mu wàccee ci suñ kaw mu wàccee ci suñu kaw mu tiis lool dogal bi tiis lool waaye nag waaye nag taxut mu métti taxut mu métti ndax métti bu fekkee sa yaram dara gaañuwu ci ndax métti bu fekkee sa yaram dara ci feebarab xol la feebarab xol la ab jaam. te ab jaam. warta séq ak boromam. warta séq ak boromam. mu koy teg loo xam ne. mu koy teg loo xam ne. dafay taxaw naan lii dafa métti. dafay taxaw naan lii dafa métti. dafa war a gërëm rek. dafa war a gërëm rek moom jaam bi. kon dogal dogalab yàlla bi daanu ci suñ kaw. kon dogalab yàlla bi daanu suñu kaw. tiis na lool de. tiis na lool. waaye gërëm nañ ko. waaye gërëm nañ dogal bi. seede yi ñu fi dégg nag. seede yi ñu fi dégg nag. imaam Cheikhou Mbaye wax ko. imaam El Hadj Cheikhou Mbaye wax ko. wutu ci waa dëkk bi yëpp. wutu ci waa dëkk bi yëpp. Papa Ndiaye di waajuram wax ko. Papa Ndiaye di waajuram wax ko. Cheikh Mouhamadul Habib wax ko. Cheikh Mouhamadul Habib wax ko. wutu ci famille ñaseen bi yëpp. wutu ci famille ñaseen bi yëpp. li ko dalee ci xalifa bi. li ko dalee ci xalifa bi. bi gën a tuuti ci famille bi. ba gën a tuuti ci famille bi. doy na sëkk ci seede. doy na sëkk ci ay seede. ndax li muy tekki. ndax li muy tekki. mooy xale bii. mooy xale bi jullit xaqan la woon. jullit la woon. ñun ñëpp mën nañ koo seede. ñun ñëpp mën nañoo seede loolu. diirëb mu ñëw sama kër. diirëb mu ñëw sama kër. ba tàkkusaan ji ñu mujj a julli. ba tàkkusaan ji ñu mujj a julli. li ci xëpp ci waxtu yi. li ci xëpp ci waxtu yi. bu fa nekkee ma nekk fa. bu fa nekkee ma nekk fa. ñoo koy bokk julli ci jumaa ji. ñoo koy bokk julli ci jumaa ji. ñoo koy bokk wala ñu bokk julli ko ca kër ga. wala ñu bokk julli ko ca kër ga. mu musuma xam ci moom. maa xam ci moom. mbaa ma yëg. mbaa ma wenn waxtu wum faat wenn waxtu wum faat ba ni mu demee nii sax ba ni mu demee nii sax tàkkusaan lañ bokk julli tàkkusaan lañ bokk julli avant timis di jot avant timis di jot yàlla jël bakkanam yàlla jël bakkanam kon yóbbuwaale wut sax waxtu kon yóbbuwaale wut sax waxtu julli nañ tàkkusaan ba pare julli nañ tàkkusaan ba pare ma jox ko am mbind ma jox ko am mbind ne demal nga bindal ma ko ne demal nga bindal ma ko mu dem di ko bindi mu dem di ko bindi avant muy indi muy indi mbind ma néeg bi muy fanaan. néeg bi muy fanaan. ndeke bu yàlla ji tawee. ndeke bu yàlla ji tawee. fenêtre ba day paas ndox. fenêtre ba day paas ndox. ci man man a boppam. ci man man a boppam. ak xiram. ak xiram. ak bëgg lu baax. ak bëgg lu baax. mu ne da koy jéem a defar. mu ne da koy jéem a defar. defar benn ba ba pare. defar benn ba ba pare. nga xam ne boobu da ngay taxaw ci balcon bi rek defar ko. nga xam ne bii da ngay taxaw ci balcon bi rek defar ko. bi mu paree jéem a defar ba ca des. bi mu paree jéem a defar ba ca des. bi ma duggee ci biir sax ànd ak policiers yi. bi ma duggee ci biir sax ànd ak policiers yi. biir gi defar na ko ba pare. biir gi defar na ko ba pare. biti gi des ci. biti gi des ci. mu ne munu koo defar lu dul mu yëg ci kaw tiwil bi mu ne munu koo defar lu dul mu yëg ci kaw tiwil bi tiwil boobu nga xam ne bañ ko fa yéeg bañ ko fa monté ba léegi tiwil boobu nga xam ne bañ ko fa monté ba léegi yëguma sax ku ci yéeg yëguma sax ku ci yéeg ku ci mësaan a bëgg a yéeg sax ku ci mësaan a bëgg a yéeg sax ci li ma xale yi nettali ci li ma xale yi nettali dafa leen daan tere moom dafa leen daan tere waaye ndeke repp ñëw na waaye ndeke repp ñëw na mu jël mu jël tiwil boobu yéeg ci mu jël tiwil boobu yéeg ca pour defar fenêtre bi pour defar fenêtre bi ànd ak tiwil bi ànd ak tiwil bi daanu ci suuf daanu ci suuf lii la yàlla jëlee bakkanam lii la yàlla jëlee bakkanam waaye dem na de waaye dem na de waaye borob julli sax waaye borob julli sax yóbbuwut ko yóbbuwut ko jullit xaqan la woon jullit xaqan la woon tijan hakkan la woon hakkan xaqan la woon diireem ma may ko wirdo wi diireem ma may ko wirdo wi ba ni mu ji boromam ba ni ji boromam bët bu set mu wirdu suba bët bu set mu wirdu suba wirdu ngoon wirdu ngoon wasifa ca mbooloo wasifa ca mbooloo bu xame ngant rek bu xame ngant rek doora wasifa moom doora wasifa mom kenn ñettel bi ñettel bi ku deggu la ku deggu la diire mu nek ci kër ga diire mu nek ci kër ga ba yalla jël bakanam ba yalla jël bakanam musuma deg mu fen mu fen jullit bu dul fen te jullit fen ci jamono ci ji jamono lu jafe-jafe lu jafe-jafe la waaye lu la wax waaye lu la wax mu neex la mu neex la mu naqari la mu naqari la mooy dëgg mooy dëgg du wax mukk lu dul wax mukk dëgg. ak nu situation mën a demee. ak mën a demee. dëgg rek lay wax. dëgg rek lay wax. loolu nag yombul. loolu nag yombul. ñeenteel bi. ñeenteel bi. ku jubla ku jub la. ku maandu la. ku maandu la. ku doylu la. ku doylu la. ku jubla ku jubla li jaar par at ci sama loxo li jaar par at ci sama loxo di jaar ci loxom di jaar ci loxom di jëm ci liggéeyab yàlla di jëm ci liggéeyab yàlla wala mu jëm ci jaami yàlla wala mu jëm ci jaami yàlla yi dana ëpp lum néew néew dana ëpp lum néew néew ñeen fukki million ñeen fukki million ben 15 ben 15 musu ci manqué musu ci manqué waxuma la deureum waxuma la deureum dem na ba ma wóolu ko dem na ba ma wóolu ko tam tam hor tam hor mu jël sama wéef bi. mu jël sama wéef bi. defal defal ko defal ko application. defal ko application. ci téléphone bi ci téléphone xaalis bu ma nit envoyé. xaalis bu ma nit moo ma ko njëkk a gis. moo ma koy njëkk a gis. day dem retiré ko. day dem retiré ko. ne ma dañ laa yónnee lii. ne ma dañ laa yónnee lii. diwa la ko yónnee. diwa la ko yónnee. numéro baa ngi nii. baa ngi nii. ma ne ko xool ma ko. ma ne ko xool ma ko. ma sant ko ma sant ko. te loolu bu ko lekkoon. te loolu bu ko lekkoon. man ma ko yëg. man du ma ko yëg. am na ci yoon boo xam ne am na ci yoon boo xam ne yàggul dara yàggul dara téeméeri junne téeméeri junni la retiré la retiré ne dañ la ko yónnee ne dañ la ko yónnee te yëguma ko te ku jubla ku jub la dërëm ab doomu aadama dërëm ab doomu aadama bëggu ko bëggul ko te jamono ji te jamono ji ak njullit ak njullit du julli rek du julli rek de du jàng alquran du rek waaye jullit piir waaye jullit piir mooy nga séexlu mooy nga séexlu lekk xalali jàmbur jàmbur loolu nag yàlla mayoon na ko mayoon na ko ko ku doylu la ku doylu la lu mu am rek lu mu am rek doy na ko doy na ko ku tabee la ku tabe la lu mu xam mën na koo joxe lu mu xam mën na koo joxe lu ko fekkee rek lu mu ko fekkee rek nga nga tawar ko ko am problème rek nga tawar ko am problème rek mu jël li mu xam lépp mu jël li mu xam lépp jox la mm. ki ma ko booleeg muy liggéey ki ma ko booleeg muy liggéey ba ma ko ko tàggee ba ma ko ko tàggee lim njëkk a wax lim njëkk a wax ñun de suñu entreprise bi. ñun de suñu entreprise bii. daanu na daanu na. ndax fi mu ko féetee woon ndax fi mu ko féetee woon. amul kenn ki ñun ku ko mën a. amul kenn ci ñun ku ko fa mën a féetee. mi ngi sax bàyyi woon na ko ñeenti seg yoo xam ne retiré guñ ko. mu ne moom sax bàyyi woon na ko ñeenti seg yoo xam ne retiré guñ ko. mu wax ma ko démb. mu wax ma ko démb. ma yónnee ci fa mu doon tëdd. ma yónnee ci fa mu doon tëdd. fekk na mu tëll mu mu classé seg fekk na mu classé seg yëpp. waroon na xëy tey. waroon na xëy tey. dem cees dem Thiès. Faya kujiko, fayeeku ji ko dara manki dara manki wu ji kon yàlla na ko yàlla xare kon yàlla na ko yàlla xare aljanna liñ ko yaakaaral ci liñ ko yaakaaral ci yàlla yàlla na fekk lu ko yàlla na fekk lu ko ëpp rabbi dem na ci ndaw dem na ci ak ndaw yàlla na mottalee ak ndawam na ak ndawam ci aljanna ci aljanna rabbi fu mu masa fanaan fu mu masa fanaan fi nara nar a fanaan tey nii fi fanaan fanaan fi fanaan fi démb yàlla na يالنا كو گنل فم مسفنان فم مسفنان تي ادنا تي بركيب سيدنا تي بركيب سيدنا محمد يالنا فك ماك بايام يالنا فك ماك بايام اك وا دك بي ييب اك وا دك بي ييب ني نكوي جوي ني نكوي جوي فك موم ميغي واخني فك موم ميغي واخني يا ليت قومي يا ليت قومي يعلمون يعلمون بما غفر لي بما ربي بما غفر لي ربي وجعلني وجعلني من المكرمين من المكرمين يا كارل نكو كو دي يا كارل نكو كو دي جليل حقا لا جليل حقا لا tijan hakkan la tijan hakkan la ku jub la ku jub la ku doylu la ku doylu la ku mandu la ku mandu la ku fegu la ku fegu la te jikko yi du nek ci kenn te jikko yi du nek ci kenn di dajee ci jëm di dajee ci jëm borom di dem safara borom di dem safara man tane man tane mok mok moo kon kon moo tax kon yalla na ko yàlla xaree aljanna yal na ko yàlla aljanna yaatal dëkkuwaayam yal yalla yàlla yaatal wayam bam raw wayam bam raw wayam ya rabbi yalna na wax ne yàlla na wax ne man de yéex naa ñëw fii man de damu damm bu mag la damm damm bu mag la ci ñun ci ñun ci waajuram ci koyalla ci mbokkam ci mbokkam ci dekk bi ci dekk bi ci génération bi ci génération bi ci diine ji ci diine ji ci tariqa bi ci tariqa bi waaye yàlla nañ ko yalla jangal waaye yàlla nañ ko yalla jangal ya rabbi jang jang bo xamne jang jang bo xamne dotul damati dotul damati mukk papa njaay mi di waajuram papa njaay mi di waajuram sant nañ ko de sant nañ ko de gërëm nañ ko lool gërëm nañ ko lool. man de ak muñam. man de ak mën a muñam. mooma muñ loo mooma muñ loo. ndax bi bi xale bi noppaloo. ndax bi xale bi noppaloo. toog naa lu mu ne nu ma koy waxee. toog naa daal xelaat xelaat nu ma ko war a waxee. lum néew néew. lum néew néew. toog naa lu ëpp waxtu. toog naa lu ëpp waxtu. ak genn wàll. ak genn wàll. ni naka naka laa koy waxee. ni naka laa koy waxee papa. waaye ba ma ko waxee. waaye ba ma ko waxee. da ci ànd gëm yàlla. da ci ànd ak gëm yàlla. ànd dal. ànd ceeg dal. ànd ceeg muñ. ànd ceeg muñ. gu mat sëkk. gu mat sëkk. muñam googa. muñam googa. moo ma muñ loo. moo ma muñ loo. dalam googa. dalam googa. moo ma dalloo. moo ma dalloo. papa yalla na la Yalla fay papa yalla na la yalla fay ya rabbi yalla na la ko yalla hutal yalla na la ci barke sayyiduna ci barke sayyiduna Muhammad kaddu yi ma wax kaddu yi ma wax moy kaddu Cheikh Habib moy kaddu Cheikh muhammadul Habib bi xew-xew bi amé bi xew-xew bi amé bokku na ci ñima ñëk bokku na ci ñima ñëk jaal mako ko jaal mako ko kaddu yi ma wax kaddu yi ma wax moy kaddu suñu mag moy kaddu suñu mag suñu serigne suñu serigne suñu khalifa suñu khalifa papa khalifa ñass papa khalifa ñass bi mbir mi xewee. bi mbir mi xewee. gént pël la ko fekk. gént pël la ko fekk. mu xoo ma. mu xoo ma. jaal ma ko jaal ma ko. sori moo ko teree ñëw. sori moo ko teree ñëw. waaye ñëw na. waaye ñëw na. Mouhamed Niass a ngi nii. Mouhamed Niass a ngi nii. ñu bokk benn baay. ñu bokk benn baay. Cheikh Idrissa ngi nii. Cheikh Idrissa ngi nii. ñu bokk benn baay. ñu bokk benn baay. kaddu yii ma wax. kaddu yii ma wax. mooy kaddu Mouhamed Ibrahima. mooy kaddu Mouhamed Ibrahima Niass. bi mbir mi xewee. bi mbir mi xewee. woo ma. woo na ma. jaale ma ko jaale ma ko ñaanal ko yàlla ñaanal ko yàlla xam naa lu mel nii xew caameen waalo xam naa lu mel nii xew caameen waalo ñu bokk même waxtu ñu bokk même waxtu mooy ngantam mooy ngantam waaye ñëw na waaye ñëw na sëñ Maara Ñas a ngi nii sëñ Maara Ñas a nii ñu bokk benn baay ñu benn baay mu ñëw fekkee ko mu ñëw fekkee ko kaddu yi ma wax kaddu yii ma wax mooy kaddu El Hadj Ahmed Babacar mooy kaddu El Ahmed Babacar bañ yëkkatee bañ yëkkatee lii xew lii xew bokk na ci njëkk a xoote bokk na ci njëkk a xoote mastawuñu mastawuñu jaal ñu ko jaal ñu ko ngant rek ngant rek moo ko tëree ñëw moo ko tëree ñëw muy guddee gi muy guddee gi waaye dafa xamoon yéene waaye dafa xamoon yéene ànd ak ñun ànd ak ñun waaye ñëw na waaye ñëw na sëñ Aliou Badaa ngi nii sëñ Aliou ngi nii ñu bokk benn baay ñu bokk benn baay mu doomi Balaaji Babacar mu doomi Balaaji Babacar bàyyee ko bàyyee ko Dakar bàyyee ko Dakar ànd ak ñun ba fii ànd ñun ba fii barki démb la bàyyee ko Amérique barki démb la bàyyee ko Amérique sëñ Omar Niass sëñ Omar Niass di doomam di doomam moom tamit mi ngi nii teew mu nii dégg moom doon yëkkati kaddu ci première bi kon Niassène woon ñeseen kenn desut kenn desut ñëpp fi teew ñëpp fi teew ci jigéen ñi ne ci jigéen ñi nag suñu mag soxna nday jàllo suñu mag soxna nday jàllo barki démb la bàyyi ko Amérique barki démb la jógee Amérique moom tamit mu ngi nii bi liy xewee moom tamit mu ngi nii bi liy xewee moo ko wax sa pap xalifa moo ko wax sa pap xalifa ñëw ànd ak ñun ñëw ànd ak ñun soxna awa seex soxna awa seex ñëw nañu ñëw nañu kër ga tey kër ga tey kenn desu fa kenn fa ñëpp a ñëw ñëpp a ñëw ndax jàmm ji mu amoon ak moom jàmm ji mu amoon ak ñoom di kaf ak ñoom di kaf ak ñoom di reex ak ñoom di reex ak ñoom diirëb lim ne ci kër gi diirëb lim ne ci kër ga ba dogalab yàlla bi ñëw nii ba dogalab yàlla bi ñëw nii kenn musumaa kalaame kenn musumaa kalaame ak Adi Ndiaye ak Adi Ndiaye du soxna du soxna du doom du doom du taalibe du taalibe mustaham mustaham kon li muy tekki kon li muy tekki ku neex a dëkkal ku neex a dëkkal la ku yaatu la ku yaatu la mbooleem ñi ma yàlla booleet mbooleem ñi ma yàlla booleet ñëpp ñëpp ku ma xam ku ma daanaka xam nga ko daanaka xam nga aadi mii fu lañ ko ñaanal tamit fu ne lañ ko ñaanal tamit ci àdduna bi ci àdduna bi ci Amérique Amérique ñaanal nañ ko fa nañ ko fa ca daayira ba ca daayira ba ak soppe ak soppe ya ca Italie ca Italie ñi ñu war a defal conférence war a defal conférence ñoom ñëpp groupe lañ def ñoom ñëpp groupe lañ def ñaanal nañ ko fa nañ ko fa ca Espagne ca Espagne ca France ca France amul fenn amul fenn fu ma yëg ñi xam ma fu ma yëg xam ma lu dul ba ñaanal nañ lu ba ñaanal nañ ko rek. ñaan yooyu yëpp ñaan yooyu yëpp. yàlla na ko dal yàlla na ko dal yaa rabbi. ci barkeb yonent bi ci barkeb yonent bi. bi mu dogee ba léegi. bi mu dogee ba léegi. rajo yi ñu yàlla jox yëpp. rajo yi ñu yàlla jox yëpp. ñu ngi ko hubbi. ñu ngi ko hubbi. nit ñi di jaale. nit ñi di jaale. nit ñi di seede. nit ñi di seede. ca Kaarang. ca Kaarang. ca Kaffrine. ca Kaffrine ca Kaolack ca Kaolack. ñaari fan yëpp ñaari fan yëpp programme yi ñu am yëpp programme yi ñu am yëpp mooy programme u Adi Ndiaye mooy programme u lépp te lépp liggéeyam moo ko moo ko may yal na ko yàlla xare na ko yàlla xare aljanna yal na dee di noflaayam yal nekk noflaayam yal yàlla yaatal kanamam yal na yàlla yaatal kanamam yal na yàlla yaatal gannaawam yal na yàlla yaatal gannaawam yàlla bu mu fekki fitna yàlla bu mu fitna yàlla bu mu bàyyi fitna yàlla bu mu bàyyi fitna yaa xarit yi soppe yi xarit yi ak soppe kenn mënu leen a fay kenn mënu leen a fay lu ëpp fukki oto lu ëpp fukki oto topp na ñu topp nañ ñu ngir ñëw bokk ñu ngir ñëw bokk ñun bis bii li ci hëpp li ci hëpp dakaar lañ bàyyi Dakar lañ bàyyi ko ñi bàyyi ko Kaolack ñi bàyyi ko Kaolack ñi bàyyi ko Kaffrine ñi bàyyi ko Kaffrine Alaaji Keeba Njaay mii mi ngi nii ma nga bàyyi mu ngi nii ma nga baxee ko ba Kër Moussa ba Kër Moussa ndax foofu la ko xew-xew bi foofu la ko xew bi fekk mu taalee otoom mu taalee otoom jiituñu kër ma jëbel jiituñu kër ma jëbel ñëw ànd ak ñëw ànd ak ñun docteur Ndaw docteur Ndaw bàyyee ko ba ba Kaffrine bàyyee ko ba Kaffrine euh, ki Cheikh Tidiane Padane ti Tidiane Padane Mouhamed Gakou Mouhamed Gakou ak ñeneen ku mënuma ak ñeneen ñi mënta lim ñëpp sama jarbaat yi sax sama jarbaat yi sax Birane Diop mii Birane Diop mii taalibe maam Khalifa taalibe maam Khalifa Modou Diop Modou Diop ak Baye Mbaye ak baay Mbaye ñëpp ñoom ñëpp kenn desul kenn desul taal nañ seen i oto taal nañ seen i oto topp ñu topp te su ma ko yaataloon te su ma ko yaataloon ngir yërmande gi ma am ngir yërmande gi ma am ci ñoom su su fekkoon ne su fekkoon ne yërëmuma woon nit ñi yërëmuma woon nit ñi lu ëpp fanweeri oto lu oto dañ bàyyi ko Dakar dañ bàyyi ko ñëw topp yàlla seede na ko wallaahi yàlla seede na ko yàlla na ko yàlla xare yàlla na ko yàlla xare aljanna wax ji mat na wax ji mat na te jotaay bi yàgg na jotaay bi yàgg na yàlla na yàlla fay ñëpp yàlla na yàlla fay ñëpp yiw ci barke bi yonent ci barke bi yonent bi bi lii xewee ba léegi bi lii xewee ba léegi nit ñi lekkuñu nit ñi lekkuñu naanuñu naanuñu nelawuñu nelawuñu heure bu nekk heure bu ne ñu ngi téléphoné ñu ngi téléphoné ñu ngi dem ak a ñëw ñu ngi dem ak a ñëw yàlla na yàlla fay ñëpp yàlla na yàlla fay ñëpp aw yiw yaa rabbi ci barkeb Seydina Muhammad li ci des nag li ci des nag nañ defar sàppe yi nañ defar sàppe yi te jubal ko te jubal ko jël nañ teraangay ju léegi jël nañ teraangay ju léegi yëpp yëpp jox ko suñ mag jox ko suñu mag Cheikh Mouhamadul Habib Cheikh Mouhamadul Habib Niass mu julleexal ñu ko mu julleexal ñu ko jébbalal ñu ko maam Khalifa jébbalal ñu ko maam Khalifa mu jébbal ko Maalaji Ablaye Niass mu jébbal ko Maalaji Ablaye Niass mu jébbal ko Cheikhou Tidiane mu jébbal ko Cheikhou Tidiane mu jébbal ko Seydouna Mouhamad mu jébbal ko Seydouna Mouhamad mu dugal ko aljanna mu dugal ko aljanna defar leen sàppe defar leen sàppe yi jërëjëf mu ngi noonu kaddu Aliou Sall Cheikh Mouhamadou Khadi moom moo doon bi nee na nga ñëw moom dana la fay nu bor ba toll rek nu bor rek boo ñëwee ñu fay boo ñëwee ñu fay la ñu xam ne kon dara waratu ko ñu xam ne kon tey jii dara waratu ko ci diggante moom ak boromam ci diggante moom ak boromam ak diggante moom ak moroomam defar leen sàppe yi defar leen sàppe yi jërëjëf mu kàddu yi Serigne Mouhamadou Hadi Niass moom moo doon jub noonu ñu xam ne julee nii fardu kifaaya la. fardu kifaaya mooy loo xam ne. fardu loo xam ne. la war. waaye bu amee ñu ko taxawee. wàcc ña ca des mu wàcc ña ca des kenn taxawewut bu ko kenn taxawewut ñëpp am bàkkaar ñëpp am bàkkaar kon lii ñu bëgg def kon lii ñu bëgg a def muy jullee suñ mbokk mi muy jullee suñ mbokk mii ci la bokk ci la bokk kàbbar yi ñeent la kàbbar bari ñeent la bu imaam juumee bu imaam juumee sëlmal ñetteel sëlmal ñetteel bu leen sëlmal bu leen sëlmal sàbbaal leen ko leen ko mu mottali mu mottali ngeen mottali ngeen mottali mu sëlmal mu sëlmal ngeen sëlmal ngeen sëlmal bu imaam juumee bu imaam juumee jàll ci juróomeel jàll ci juróomeel ca topp bu leen ko ca topp sëlmal leen sëlmal leen mu sëlmal ku mën ñaan gi nga wax ko ku ko mënut nga wax ñaan gi gën a nga wax ñaan gi gën a gàtt muy allahumma axfir lahu warhamhu ku ko mënta wax ci arab nga wax ko ci wolof wala làmmin wa nga mën a koo waxee rek bismillah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 السلام عليكم génn nii xaw leen a génn génn miir bi sànn dañu xaarandi tuuti rek Thank you. jërëjëf sëñ bi saakumulaaw xayran maa ngi nuyu sa gaay yi ngay jokkoon nii yaakaar naa Samba fa ne moom mi ku reelu la ndeysaan dama koy bàyyi xel jamono ju ne ak waxtu wu ne waaw moom moom nit la koo xam ne ni moom it waaw nit ak aljanna la koo gis mooy rooloo ni ngi rek nitu aljanna la continuer continuer koo muy reeloo nit ñi rek nit ak aljanna la waaw ndax fi teguma ko fan fi ko Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha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 Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah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 لي وابكي سنين الخوالي بالربوع البوالي وابكي سنين الخوالي

كل دام يا ميكا فادلالي Yeah. السماء للوصال ينسلك في كل دار وكل آل ومال درات كرسان من حلي فخبالي وعوغدت بسياق في الخلب جيس وتصالي فقا سقي

بخير الرجال ولو قل عالي في ولا تبالي من يصلح لا يزغل زنمي في حدين متلالي يستقبل الرتانو بكل أنا غزالي وكل baas been yajiri besaaw kisayaa yewa kayfala wa amri aslun le ko le jamaale النار قلوات يبدو وزام سوزوالي لو لو ما كان كانون إذ كان عين الكمال لهما كان كونا إسكاناي الكمال فهو المقدم حقا في الخلق دون جدال يلي أريد يلي أريد كيف تحبها يلي أريد كيف انت خربازا ففهم لجام القلال يا تبي لولا ما تمر بحور دلالي دجت الارض منه دجة الأدم وزلزلت لزوال فنار صبح داه ولا حبار الكمال فوحد الله حقا فواحدا لواقا من كان في سكران فأصبح الحق يعلو وشرق تحت النعال اللهم زر نورا ولا سلام علي إذا في ظلال يشي صدى يا يشي بعز بظلال الوفاء مهمانا على ممار الليالي بأقتا وسابين لو كرام الوالي وابسط لنا كل خير لا ينتهي بالمال يصل لنا الهلكون بكل آل ومال وفاجنا من في ليالي وحلنا في البرايا بهيبة وجلالي خلو يد خلو يد خلو يد وفاس حما لا إله من منزل ويال وصاحب ومريد وناصر وموالي ثم صلاة على كان والكمال والناصر وصحابه وآله يا قطب يا غوث يا غيث الأنام معا فلتسقينا عبدك ذليل مولانا يا حب سيدنا تابعه أبدا فدل عبدا جهورا صار حيرانا يا كاشف الكرب فلتكشف له الكرباء فد علي يا مفيض فيضانا يا من له المن والمنع كما ظهر يا بحر كل ولي فاق أقرانا يا برزقا قاتما إمام من حشروا من الأكابر والأقطاب تيجانا لولاك ما زاقت الأرض أقطاب معرفة وغيرهم مسجلا منكرهم وأنت أعلمهم بالله أكثرهم خوفا لو زل ولي فاز من دا حمدت ربي إذا ما كنت تابعه يا ويحم بغير من سمكوك يا من له الشرف تيني ودين نعم وسرف العلم يا محسن مأوى يا وارث الحب هو الخل بلا فند فلتقصف الحجب يا ابي أزمة هذه هديتنا فقز إليك بها ثم إلى حبنا حبيب مولى وطهر القلب والجسم يا خمر يا حادرا سامعا بالمن من اسمع إلهي يا مولاي يا صمد دعاء عبد حزين صار هيمم بجاي سيدنا وجد عياجبا فسرعة سرعة الرحمن رحم سل وسلم على شفيعنا أبدا يا معطي الفل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ولقى والقاتل سبق ناصر أقبق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هاليا دار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولقى والقاتم سبقنا سراق باقوى الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى عالية على عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتم لما سبق ناصر أقبق ولا إلى تلك المستقيم وعلى آله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 فك الاخلاص اك بن فك الاخلاص اك الاخلاص بني مو عندك بسم الله الرحمن الرحيم الاخلاص بني عندك بسم الله الرحمن الرحيم اك صلاه الفاتحه ak fukki salaatul faatihi ñu yéene ko yool bi ñu yéene ko yool bi moom haadi mi yéene ji rek doy na yéene ji rek doy na jarul di ko tafli ci xeer jarul di ko taf si xeer di ko sànni ci kaw bàmmeel di sànni ci kaw bàmmeel bi ndax yéene ji mooy dem ndax yéene ji mooy dem xeer wi ci kaw bàmmeel bi la yem ci kaw bàmmeel bi képp la yem kon nañ doyloo yéene ji nañ doyloo yéene ji te sellal njàng mi te sellal njàng mi ndax yàlla lu sell la soxla ndax yàlla lu sell rek la soxla kenn ku ne ci ñun lu sell nga soxla lu sell nga soxla te yàlla na yéex ci ñun ñëpp waaye yàlla na ci ñun ñun ñëpp bis bii bis bii képp ku bëgg bu la ñëwalee. ah mu ne ku nekk nag boo bëggee bu la ñëwalee. buñ la dencee. buñ la dencee. ba di la ñaanal ba di sellal ñaan ga sellal ñaan ga. lebal ko Aadi Njaay mi tëdd waaye mi. mooy tax ëllëg. mooy tax ëllëg. ñu fay la ko ñu fay la ko de. ndax kamaa tadiinu tudaanu ndax kamaa tadiinu tudaanu. lu waay leble rek leble rek. moom lañ koy fay ah, lay fay. kon kon nañ sellal njàngin bi nañ sellal njàngin bi. yéene ko yool bismillah bismillah ci yeggalut na nga yeggale mu ne ku ci yeggalut fexeel yeggali suñ paree ñu teg ci fukki lixlaas ak benn buñ paree ñu teg teg ci fukki lixlaas ak benn lixlaas bu ne mu ànd ak bismillahi rahmaani rahim ànd ak bismillahi rahmaani rahim te buñ baamu fatiha gi ak fukki salatul fatih ñu tejje ko fukki salatul fatih yene yol bi yene yol bi ñi fi tëdd ñep ñi fi tëdd yep comme niko Omar waxe comme comme man ni mako waxe nañ doylo doyloo faatixa gi nañ doylo faatixa gi rek ndax sayidina Cheikh ndax sayidina Cheikh radiallahu taala anu dafa wax ci téeram bu ñu wax ifadatul ahmadiyya dafa wax ci tere bu ñu wax ifadatul ahmadiyya mu ne takraru takraarul fawatih mu ne takraarul fawatih mubtilun lid-du'a mubtilun lid-du'a bamtu fatiha mu ne bamtu fatiha ci ben jotaay ci ben jotaay dafay yàq ñaan day yàq ñaan ba tax na booy def ay dogi ñaan boy def ay dogi ñaan wala ngay joxe ay dogi ñaan wa boy joxe booy joxe ay dogi ñaan dog bu njëkk ba rek dog bu njëkk ba rek ca ngay jang fatiha ca ngay jàng fatihatul dogam ñaarel ba dogam ñaarel ba ba fa dog yeyam ba fa dog yeyam bo bamto fatiha ja rek bo bamte fatiha ga rek seydina cheikh radiyallahu anhu cheikh radiyallahu taala anhu ñaan na sa ñaan yàqul te kenn bëggu di ñaan te kenn bëggu di ñaan sa ñaan yàqul kon nañ doylo fatiha ju njëkk ji jang fukki lixlaas ak ben lixlaas bu ne mu and ak bis bisimillahi rahmaani rahim ànd ak bisimillahi rahmaani rahim ak fukki salaatul faatixi ñu tëjee ko nag fukki salaatul faatixi yéene yool bi yéene yool bi maam Tamsir Mor Mbay Tamsir Mor Mbay ak njabootam gi fi tëdd ak njaboot gi fi tëdd yëpp yéene waale ci mboolem jullit yéene waale ci mboolem jullit yi nga xam ne tëdd nañ fii ak mboolem jullit ak mboolem jullit fuñ mën a tëdd fuñ mën a tëdd ci àddina bi bisimilah bisimilah yal na ko yàlla jotale yool bi yal na ko yàlla jotale mboolem ñi fi tëdd yal na ko yàlla jotale mboolem julit fu ñu mën a tëdd yal na dee dina flaayam fii mu tëdd tey yal na ko dàqal fu mu daan tëdd yal na dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na dëkk ak Seydina Cheikh radiyallahu anhu yal na dëkk ak Toomaham yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na dëkk ak mboolem ñu baax ñi amin bi jaahidil Mustafa ñu ngi leen di wax ne nag lépp yem na bis naka tey amul saraxu ñetti fan. amul saraxu semaine amul saraxu weer amul saraxu ñeen fukki guddi lépp yem na bis na naka tey sarax bi ñu bëgg ngeen defal ko ko daal seet li mu gënoon a bëgg ci ñam su ngeen xëyee togg ci lu suur kenn seet ku ñam jafe ngeen jox ko ko su ngeen toogee ba ngoon ngeen toggaat ci lu suur kenn seet ku ñam jafe nga ngeen jox ko ko ngeen defal ko ko ba bisam dellu si sarax bi wax nañ ne kuñ ko defal incha allahu taala doo layoo ci biir bàmmeel maam Khalifa radiyallahu anhu daana wax ne. ne maam Khalifa daana wax ne. layoo yey. layoo yey. li muy neex neex. li muy neex neex. ñàkk layoo ko dàq. ñàkk layoo ko dàq. te sarax bii. te sarax kuñ ko defal ci sa biir bam kuñ ko kuñ ko defal. kuñ ko defal. doo layoo ci sa biir bàmmeel. kon sarax bii rek. sarax bii rek. lañ leen di digal. lañ di digal. ngeen defal ko ko. ngeen defal ko ku ci amatib néewit. ku ci amatib may nañ la ndigal. may nañ la nga defal ko ko. na nga ko ko defal gërëm na ñëpp gërëm na ñëpp sant na ñëpp sant na ndax wax dëgg yàlla mbir mi diis na tiis na waaye mujj na oyof waaye mujj kat lu diis lu diis boo day mujj oyof kon gërëm na ñëpp sant na ñëpp sant na yàlla ñaan ci yàlla tànk yi yi ñuy delloo yàlla bindal ñu ko faral ñu ko bàkkaar yëkkatil ñu ay maqaama yëkkatil ñu ay darajaat képp ku fi aajo budut mooy yàlla yal na yàlla faj képp ku fi indi bakkaar yal na yàlla jégal képp ku fi indi jàngoro yal na yàlla saafara lii yal na fi gëj yal na fi gëj yal na gëj ci mboolem barab bi kon ñu ànd dellu ca kër ga mottali waxtaan wi ndax liñ bëggoon a wax yëpp xajut ci kanam jumaa ji képp ku ci am ngant it yewi nañ jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf loole mooy li nga xamante ni moom moo doon kàddu yi macha Allah شوخة جان زادة في موجة خادة فلا ينادى سر دران مسنا من وفردا شوخة جان زادة في موجة خادة فلا ينطان خلت يرخى دمعي يزيد وزيادة لكن ما مع فؤادي الرقم ما قد أرادا الموجة إقادة فلا ينوتا سر الدورا مساوامي وفرادا وسالوم من يسوع قلبي وكان المرادا يا سيق زاويد بيدان يرجو بفالك زادا وقتي جاني زادا في موجتي إقادا ولا ينوتا ومن وفردا يرد من كفؤاد في متى لم يرد القيد من مدر فلتغد في كتيدا فلا ينادى سردرا do men kafade mata lan yurada fal khaydo men namodara fal to de kateda sakote jane sada mojade qada fal hayna dan sorodara في أمار وداد إذا أرام ودادا وأنت ديه وهني إذا أرام جلدا سخدي جان سادا في مجدي إقادا فالحين الداسور النورا مزامين فردا وفي الصيام في دليل ذات وحدا أسم محب ينادي خير الليل قد ينادى لقد جاني سادا في موجدي أقادا فالحين الرعال سرندرا مزنا بين وفردا يا فاتر الليالي في الرسول والوسادة إذا يراجع الزفاء بجواء وتمدى تجان سادة في موجة إقادة فالحين الناس ترد راب الزمين وفرادا إذا يرى جاسفال بجواب وتمادى صلى الإله على ما على الولا والعبادة أخوتي جان سادة في موجتي إقادة والحينا الدار الدرا بسنا وين فردا إذا يرى يا بيت بالجواب وتمادا صلى لله وعلى ما على الولا والعبادة ورجال صلى بالمجاهدين خالا والعين jéegeen jëf yàlla yàlla fay leen yiw fay ñu yiw kon kàddu gi dañ koy yëkkati rekk jox ko kilifa yi di wax ne ni ko kilifay yi waxee rekk haadi moom dem na demut ku ne mën nga kaa jaale sa moroom ndax xandoor bu dammee sa waaroo wàcc na ku amoon cofeel la ci maam xalifa ñun mën nañ kaa seede Modou Fall mi ngi koy waxaal léegi ne ma loolu na ko bamtu ba ñëpp dégg ko ku amoon cofeel la ci kër gi mu nekk di kër maam xalifa Niass gëmutoon lu dul xasiidee maam xalifa yi téléphone bi moom la daan feese dell lu tax biñ tërlee sa jumaa ja ma jël hamziya dafa bëggoon hamziya fu ma ko woyaan mu daanu génnee lépp joxe ko ba pare toog nag di yuuxu yàlla xam na loolu kon kii daal yaakaar naa ne ku soppoon Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam yàlla na mottale ndawam ca àjjana ya lii yàlla fi gëj yéen ndaw yëpp ñu ngi leen koy jaale seen moroom la waaye dem na demut ku nekk xoolee ko sa bopp lam doon def ci lu baax ba sëriñam taxaw seede ko na nga teg foofu seen tànk li misli hada fal yaamal aamiloon ku bëgg am li mu am da def li mu def bu yàgg nga am li mu am wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Niass kontaan nañ trop macha allah. ñu ngi ñaan ñi tiim sëriñ bi ngeen allier tuuti ndax peex mi mën a ñëw allier leen tuuti rek ndax ngelaw li mën koo jege imaam dafa mel ni ñëwul de ñun waxtaanoon nañ lépp ne boo ñëwee kàddu gi say kàddu lay doon yéen sa diggante ak sëñ Habib lay doon yaa xam sëñ Habib may wax jox la nga wala nga wax jox sëñ Habib mu wax sëñ Habib sëñ mu ne nga ubbi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu beneen yoon ci turu khalifa bi maulana cheikh tidiane khalifa ñas ataala allah umrahu wa umrana amin ak ci turu mboolee mi rakkam ak ci turu mboolee mi doomam ñëw nañ wutu fi khalifa bi ak mbolem fami ñaseen ndax tay ji li xew ci Taïba mbayen ca ñaseen la xew ndax xale bii di sëñ aadi njaay ñaseen ak tayba mbayeen a ko bokk li ci tayba mbayeen am moom la ci ñaseen am moo tax tey jii ñu ñëw fi wuutu xalifa bi fii nga xam ne tey jii moo fi waroon a toog ba tax na ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax tey nangu ab dogalam te xam ne kat lii yàlla rek a ko sañ ndax mooy faalun li maa yuridu ndaw loo xam ne mi ngi ci buntu àdduna soxna walla ay soxna nekk ci kanamam ay kër nekk ci kanamam mu nekk di waa yaakaaru ay waajuram gannaaw yàlla yàlla xëy jël ko tàgguwut ndey tàgguwut bàyyi tàgguwut sëriñ lii yàlla rek a ko sañ ndaxte kat kenn ku ne ci ñun jaamab yàlla nga yàlla da lay jël ca waxtu wam ko soobee yonent bi moo gën ci lépp lu yàlla bind waaye lu ko yàlla wax yàlla dafa wax ak moom ci alquran نكو ko innaka mayyitun wa innahum mayyituuna summa innakum yawma alqiyamati inda rabbikum taxtasimun kon ginnaaw yonent bi la yàlla wax ne ko danaa borom bakkan la danaa ko jël wax dëgg yàlla ku yebut waaj ku yebut waaj ndax kenn xamut kañ la ak fan la ak naka la ba tax na saa yoo xëyee rek jàppal na man tey duma ma yendu nga jëf-jëfi kudut yendu te mooy yendoo jàng alquran te mooy yendoo jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy yendoo dox mbokk te mooy yendoo wax lu baax def lu baax te mooy yendoo naafila ba jantu so nga ne aa ah, lii kat yaakaaruma ko woon foogoon naa ne bala janta so yàlla jël sama bakkan waaye foog naa fajar duma fi xaree nga jëf jëfi kudut fanaan te mooy fanaanoo jàng alquran te mooy fanaanoo jéggalu yàlla te mooy fanaanoo jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy fanaanoo naafila ba dégg asalaatu xayrun min an nawmi nga ne lii it yaakaaruma ko woon foogoon naa ne bu ñuy salaatu dana fekk yàlla jël sama ruux lii képp ku ci sax dee day bette dee dana mét na lool waaye mbetteel gu oyof la lay bett dee kat bu boobaa yit dana oyof ci yow lool ba tax na kon bis bii mën ak yéen nañ ko waajal waajale ko wax ju baax wax ju baax jamono ji tumuranke na lool bu mënoon a jooy jooy na wax ju baax bu mënoon a jooy jooy na ndax tey lépp ci ñun seeni kàddu boo ko déggee taf say nopp te kenn ku ne li nga wax fii ci àdduna bu ëllëgee da nga ko waxaat cër bu ci nekk téléphone la téléphone boo xam ne day enregistré téléphone nag buy enregistré fa nga jaaroon rek lay jaaraat du yokk ca wax ja dara du ca wàññi dara kon kenn ku ci nekk boo légee cër bi bu dee loxo bi dana wax ne maa jëloon nangam bët bi ne maa xooloon nangam nopp yi ne maa déglu woon nangam pëy mi ne maa duggoon ci barab sàngam tànk yi ne maa demoon ci barab sàngam nga waaru ci yàlla nu ne mooy yéen ku leen waxloo ñu la yàlla mi wax loo lépp moom moo ñu wax loo wa qaalu li juluudihim li ma shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla cheyin aaya bi ku koy bàyyi xel yaakaar naa ne say wax du bëri say wax lépp yiw lay doon ab jullit buy wax yonent bi nee na na wax lu baax bu lu baax jeexee na noppi man kaana yuminu billahi wal yawmi l axiri falyaqul xayran aw li yasmut aw kama qaal te sax teg na ci beneen xadis mu ne képp koo xamee ne noppi nga ëllëg yow ci ñiy mucc ngay bokk man sama ta najaa aw kama qaal yonent bi nee ku noppi rek mucc ba tax na kon ku bëgg a mucc ci jamono ji na say kàddu néew te sa kàddu yu néew yooya na doon yiiw te xam ne yàlla ngi la booleeg ñaari malaayika yu lay wattu bii ci ndeyjoor loo def ci lu baax bu dee benn mu bindal la ko fukk bu dee fukk mu bindal la ko téeméer bu dee téeméer mu bindal la ko junne ma ne yàllaa jara lebal yàlla moo jara lebal man jaa abil hasanati fa lahu ashru amsaaliha yàlla nee na ku ma lebal benn bu baax man yàlla lu baax laa am fukk yu baax laa lay fay moo tax ñu ne benn ciise ciise euh, dafa ñëw ci sëñ daara yónnee ci moom ne ko boo demee ci sëñ daara ne ko kër gi kat tey jii ndekki neewu fi sëñ daara yore wut lu may menn mburu bi ko ko gone gi waxee mu gëm yàlla gëm man jaa abil xasanati fa lahu am amthaliha mu yëkkati menn mburu ma jox gone gi ne ko boo demee jox sa baay ba gone gay dem rek waayu yàlla bàyyi koo fële ñëw ci daara ji leewu fukki mburu ñëw ne taalibe yi ana sëñ daara ñu ne mi ngi ci biir mu ne joxal leen ma ko fukki mburu yii ne ko sarax la gone ga a xam naa ne siise sant mu daal di wàññi benn mburu loolu yàgg na ci taalibe yóbbu juróom-ñeenti mburu ba mu ñëwee ci sëñ daara ne ko lii de benn waaye ko fi joxe nee na sarax la sëñ daara ne ko ñaata la gone gi ne ko ma ko sëñ daara ne ko kont ko mu kont ko ne ko juróom-ñeenti mburu la sëñ daara ne ko des na benn mu ne ko ah sëriñ xanaa da ngaa yaa bopp mu ne ko déedéet yaawuma bopp yàlla moo ne man jaa bil xasanati fa lahu ashru amthaliha ku ma lebal benn bu baax fukk yu baax laa lay fay te benn mburu laa ko lebaloon kon fukki mburu la may la ma war a fay ndax maa yu baddalul qawlu la dayya wa ma ana bi dhallaamin lil abid yàlla waxam du dellu gannaaw mukk du toxalu xale ba dellu gannaaw andi menn mburu ba ba tax na kon nañuy wax lu baax te xam ne àdduna bii jeex na ba pare ku yebut waaj ndax bët bu set nga gis lu la waar bët bu set nga gis lu la waar kon wax dëgg yàlla dee gi bëri na lool waaye rawatina ci ndaw ñi ñëpp war nañoo waaj waaye rawatina ndaw ñi ndaw ñi daw leen jëm ci jàkka yi ndaw ñi daw leen jëm ci yi ndaw ñi daw leen jëm ci géewu wasifa yi ndaw yi daw leen jëm ci jàng alquran ndaw yi jëm daw leen jëm ci topp seen ñaari waajur jamono bii ndaw ñi dañoo dañoo seen ñaari waajur yi ba dafa mel ni sax tey jii ki doon waajur tey mooy njaboot ndax tey jii am na waajur yoo xam ne ñemeetuñoo santaane ci seen kër ñemeetuñoo tere ci seen kër ndax lan taw ba yàlla jox na ko teraanga bu saako ceeb jeexee mooy jënd bu facture courant ñëwee mooy fay bu facture ndox ñëwee mooy fay lépp loo xam ne fere la bu jëm ca kër ga taaw baa koy def jàpp ne tey jii moom moo yilif baayam ngir lim gàddu fere yi nga xam ne moom la baayam gàdd woon ma ne li la sa bàyyi gàddu loolu moo ko ëpp fuuf te doo ko ko mas a gàddul doo ko mas fay doo ko mas a fay doo ko mas a dab kon waajur du moroom waajur sang la waajur sëriñ la waajur dañ koy teg ca kaw foo xam ne tegoo fa kenn fi ngay teg sa waajur waroo faa teg sa sëriñ foo kën a kawe fa nga teg sa sëriñ fa nga war a teg sa ñaari waajur waaye safaan bi tey jii moo am tey bari na ci ñun ñoo xam ne niñ déggalee seen sëriñ si déggalee wuñ ko seen waajur yi moo tax coono bi bari ci ndaw ñi ndax ku wan gannaaw sa ñaari waajur yàlla wan la gannaaw kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara yàlla moo santaane topp waajur ci waabudullaha wala tushriku bihi shay'an yàlla moo santaane topp waajur ci wa wassayna linsaana bi walidayhi husna yàlla moo santaane topp waajur ci wa qadee rabbuka allaa taabudu illa iyaahu wa bil walidayni ihsaana yàlla nag bu santaane nga ne maa lànk du ma def mu ne la baax na man nag maa yor xéewal yi maa ngi la fi xaar rek sa bés boo jógee na tey jii wërsëg laa bëgg alal laa bëgg ma ne la doo ko fi amee ndax ba ma la santee ne la toppal sa ñaari waajur da ngaa lànk sa toorab baay baa ngi nii di booy nga lànk ne doo ko bay topp topp terrain yi di football rek ba sa toorab baay bi dégg nga de booy football boo xam ne yàlla tere mën nga caa jëlee tànk bu damm football boo xam ne yàlla tere mën nga caa jëlee tooy lu ne mën nga ko ca jele nga top ko rek bàyyi fi sa tola baay bi bu ëllëgee yow kat da ngay ñeete waaye kenn du la ñee ba tax na ku bëgg ñu ñee la da ngay top sa ñaari wajur ku top sa ñaari wajur am ngeureumal yalla yonent bi ko wax sallallahu alaihi wasallam yonent bi neena ridallahi fi ridal walidaini ngeureumal yalla mi ngi ci ngeureumal ñaari wajur kon ku bëgg ngeureumal yalla fexel ba am ngeureumal sa ñaari wajur rek boo amee ngërëmal sa ñaari waajur rek am nga ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla ku ko am sa àdduna jat sa àllaaxira jat kon yéen ndaw ñi na ngeen fexe ba seen waajur yi ngeen topp leen teg leen fu ngeen tegut seen sëriñ si waajur ñaari waajur ñooy première sëriñ saa yoo këyee balaa ngaa dem fenn war ngaa ñëw ci sa ñaari waajur laaj leen nuñ fanaanee mbaa fanaan nañ ci jàmm buñ ne fanaan nañ ci jàmm nga ne alhamdulillahi rabbil alamina buñ ne ah ñun kat démb nelawuñ ndax suñu yaram dafa tàngoon nga lagg dem ca dégg de docteur ba mu wutal la garab yoo xam ne baax na ci yaram wu tàng nga andil ko sa ñaari waajur gannaaw buñ dekkee ba pare ñu naan ko ba yaram wa sedd nga soog a am jàmm ndax ba ngay doon gone lii lala la waajur daan defal ba ngay doon gone bu sa yaram tàngaan yow gone gi sa baay balaa am jàmm sa yaram a sedd sa waajur wu jigéen balaa am jàmm sa yaram a sedd sa baay dana dem ci docteur yóbbu la fa ñu xool la bind ordonnance la ordonnance seer seer dana ko jënd andi jox sa waajur wu jigéen mu jox la ko ba yaram wi tedd euh, sedd mu soog a am jàmm ki la lebal lii lii nag soo ko fayee leneen fayoo naar bi xoromam ba tax na kon yéen ndaw ñi ku ci bëgg a wërsëg toppal sa ñaari waajur ku ci bëgg wërsëg sakul sa ngeureumal ñaari wajur do génn Sénégal man maa la ko wax bari ñu am ay milliard génnuñ Sénégal lu leen ko may gannaaw yalla top seen ñaari wajur kon na ngeen jël seeni wajur teg leen fo xamne ne tegu leen fa kenn bu ngeen ko defee bu yalla da ngeen am lu kenn amut kon nañ gor gor lu bu baaxa baaxa baax ci wax lu baax ci jëf lu baax ci wante jàmm ndax loolu mooy ak jullit jullit dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ne lim bëggal boppam la bëggal moroomu jullitam kii mooy jullit yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi ma yuhibbu li nafsi aw kama qaal mu ne amul kenn ci yéen koo xam ne ngëm yàllaam dana mat lu may lim bëggal boppam da ko bëggal moroomu jullitam tey safaan bee fi nekk bari na ci ñun ñoo xam ne naa am man kenn la ñuy wax naa xam man kenn naa wér man kenn naa gudd fan man kenn naa am xam-xam man kenn lii rek la ñuy wax te kat yàlla lim bëgg mooy booy ñaan nga yaatal ko dugal ci julli ñépp bañ koo def yaawu mutakallim wala damiru mutakallim inna naa ngay wax waaye bul wax ana yàlla loolu la bëgg ci ñaan ba tax na tey jamono ji li ko tax a jafe gannaaw yàlla mooy ñu bari ci ñun dañoo yéene wante wuñ jàmm da ngay bokk gis ñu bokk ndey ak baay tey jii kii bu sañoon mag ji dee tey bu sañoon tey mu ñàkk bu sañoon tey mu tëdd bu feebaree bu sañoon tey du wér wax dëgg yàlla loolu nag fekk mi ngi am ci àdduna suñu njullit des na loolu fekk mi ngi am ci àdduna àdduna du dañ ci jafe-jafe duñ dañ di nekk ci jafe-jafe kon nañ yéen a wante jàmm bëggante te yàlla tax di dimbalante te yàlla tax alquran ji ñu gën koo fonk ku ci xëy balaa ngaa dem fenn na nga jàng lum néew-néew ñaari xisib boo ko defee bu soobee yàlla ñaan sa soxla boo génnee soxla soo doxi bu soobee yàlla dara faju waaye boo ko defut boo génnee buntu boo jub mu ubbeeku bala nga egg mu tëju buntu boo jub mu tëju bu soobee yàlla du ubbeeku fa nga koy robbu dem ndaxte kat alquran ji yàlla nee na képp ku ko wan gannaaw ci dund bu xat ngay nekk dund bu jafe ngay nekk wa man arada an dhikri fa inna lahu maishatan dankan te wa naxsuruhu yawma alqiyamati ama bëri na tey ci ndaw ñi gannaaw yàlla dara yóbbeewu leen xat-xat lu may wan gannaaw alquran am na ndaw loo xam ne ba mu tëree alxuraan keroog la gëj a jàng alxuraan moo tax tey ñu bëri ci ndaw ñi fottale nañ ndax boo xasee mokkal alxuraan rek jàpp ne mokkal naa alxuraan te doo ko nafar weer laa la may wala ñaari weer nga fàtte alxuraan ndax alxuraan moom ku am fulla la ku ko téye mu téye la waaye ku ko bàyyi mu bàyyi la kon nañ jàpp alxuraan buñ bëggee suñu àdduna neex nañ jàpp alxuraan buñ bëggee suñu àllaaxira neex nañ jàpp alxuraan alquran kat lañ am mooy wax yàlla ji nga xam ne du mas a xewi jamono ju ñëw mu ànd ak moom kon nañ fonk daara yi bu baax a baax jël doom yi yóbbu leen ci daara yi ñu jàng alquran te li ñu war warloog sëñ daara yi ñu di ko matal naka noonu buñ jàngee alquran ba pare nañ leen yóbbu ci daara yi xam-xam ñu jànge xam-xam ndax olof day wax ne kaangam kese tanewut jabar ja kon gone yi nañ jànge xam-xam gone yi nag fi mu ne ku ci mokkal alquran ne damay wuti alal te alal nag nekkul ne ku ko wut am ko alal balaa ko wut da ngay jàng xam-xam ba pare soo ko wutee mu yomb la waaye soo jàngot xam-xam dem di wuti alal mën nga koo am de waaye ku am xam-xam mooy ñëw nax la jël alal ja yóbbu ko te doo ci mën dara kon ñi ngi ñaan ci yàlla daara yi yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla barkel ko yal na yàlla jëmale ñu ci alquran ñun ñëpp saxal ñu ci alquran boole ñu ci ñooñ alquran ñi ngi ñaan ci yàlla it aji dem ji yàlla yàlla yërëm ko te yéexe ñu yàlla xare ko aljanna bila xisaabin wala iqaab yàlla na dee di noflaayam yàlla dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca gën jàkkawe iliyina yàlla dëkk ak Seydina Cheikh radiyallahu anhu ca gën jàkkawe iliyina ñi ngi koy jaale ñaari waajuram yëpp ci turu xalifa bi di ko jaale mbooleem ku dëkk ci dëkk bi ak ci tund wi yëpp ñu ngi la koy jaale. ci turu xalifa bi di ñaan ci yàlla lii yàlla na fi gëj yàlla na gëj ci mbooleem barab yi képp ku fi indi aajo bu dut mooy yàlla yàlla yàlla faj ko képp ku fi indi bàkkaar yàlla na yàlla jéggal la ko képp ko fi indi jàngoro yàlla na yàlla saafara ko tànk yi ñëwee ak yi ñuy delloo yàlla yàlla bindal ñu ko tiyaabo faral ñu ko bàkkaar yëkkatil ñu ko ay maqaama yëkkatil ñu ko ay darajaat nii ñu ñëwee yàlla nañ ko delloo yàlla nañ dellu ci jàmm bàyyi fi jàmm fekk jàmm ca njaboot ga ci barkeb allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin wa sallim macha allah jef ñes ngi siyaaraat bu baax dina ñaanal yal na yàlla yokk fan wi yokk maqaama wi yaa rabbi sëriñ bi ñun pare nañ liñ doon def yëpp def nañ ko xanaa dañ lay delloo kàddu yu ngërëm ak cant xamaa leen ne famille njaayeen bi yëpp ñu ngi am cant ak ngërëm di la ko jagleel réccu wuñ lu taxoon ñu booy laak haadi mii waaye réccuñ bu taxut ñu booy laak yeneen njaboot yëpp mbooleem njaboot gu nekk foofa nekk sa loxo wallaahi tey lañ la gën a xóolu tey ko gën a jox yàlla même kumpa xam na loolu ñun yow lañ ñëweti yow lañ yërëm waaye ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ndax nit boo ko defalee lu mënu comme lu ba wax ci buntu jumaa ja bu nit war na koo wax su wéetee la yàlla sëriñ bi jërëjëf yal na yàlla fayal ñu la rëcc wuñ li taxoon ñu ànd ak yow suñ papa moo àndoon ak sa papa rëcc wu ci woon dara waaye keroog ba mu génnee àdduna ak li jamono jafe-jafe-jafe moo jànkuwante ay coonam ba ñëw wàcc ci dëkk bi ak tànkam yu sedd yu sell ñi fi fekkoon ñépp ba yàlla wàccee dogal boobu ñu gërëm ko bi mu wanee gannaaw mbooleem xulafaawu yi ko fi wuutu bu bokk tabaarakallaahu bàyyi suñu bàyyi ji nekkoon fii bàyyi ki mbay bàyyi laa ji mbay nekk ku ñàkkoon caaxaan nekk borom lasraar nekkoon borom may nekkoon borom wegu ba génné aduna fi ñu foone fofu lay aduna bi teg fofu lay aduna bi yam ci Tayba ñepp ko gëreum bay mam cheikhou Mbay bim génné aduna nona bay mam tierno rawatina bay Cheikh muhammadul Ghali mi nga xamné mo daan taxaw ci kaw minbar bi di war nit daan taxaw ci kaw ganguna yam gi di firi alquran daan tudd ci njawaanam nga di jangal ndongay yàlla wàccee dogal bi ci moom fa mu daan taxaw di jiite ñu tëral ko fa di ko jiite ànd ak loolu lépp dëkk bi dékk maanaam dékku ko gëm ko gërëm ko gannaaw loolu ñu bëree bëri wàcc nañ fi liggéey Baye Keba Jéyeeg Daaraam Ja Baye Daam Njaay ba ci Baye Alaaji Njaay barki démb ak xale yi yàlla dogal ñu desoon tey ci géej gi ba tey gisuñu seen bàmmeel loolu lépp bi mu wàccee ci kaw dëkk bi dëkk bi yépp dañ koo dékku delloo dogal bi ci yàlla kon nag foofa ñu jaaroon ak yàlla ci gërëm ab dogal bi mu dogalee dogal bi tey ci suñu doom suñu xarit suñu soppe Hady njaay nañ delloowaat dogal yooya ci moom ci gërëm ko ndax nag gën a bees le rek moo fi ne mais gën a métti li moo amu fi lu xas passé dañ koy fàtte rek waaye yii ma tudd yépp a tiisoon waaye ba mu passé fàtte nañ ko bii nag dafa nekk lu bees tey ci suñ kaw kon nañ jël lépp delloo ko yàlla ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo mën a jéggale yàlla na ko yàlla jéggal yàlla mi mën a yërëmee yàlla na ko yàlla yërëm yàlla mi mën a terel yàlla na ko yàlla teral yàlla na yàlla leeral kanamam yàlla na yàlla leeral gannaawam yàlla bu mu fekk fitna yàlla bu bàyyi fitna seedeel nañ ko ci mbokk yi seede yu dëggu duwul seede jay duwul seede wax la neex waaye seede loo mën a teg sa baaraam la ci gëm yàlla ci dëggu ci maandu ci fegu te loolu lépp nekk ci ndaw yàlla moomu joxoon ñu ko moo waxal boppam ne lu nekk ay magasin laa ci am illa indana waaye nag kon moom mooma yaakaar nañ ci màng si ni yiwam yooyu ay aadi njaay yu dul jeex nga ca yàlla nañu ko yàlla jox ñun ñëpp ba suñu kol sedd ci barkeb sayduna muhammad mbokk yi kenn mënu leen a fay bi dogal bi wàccee ba léegi ñépp bokk yenu ko ànd ci ak waajuram wi papa njaay tay ba yépp a ko bokk ak moom duma wax ba waaye damay wax tund bi yépp mbokk gi yépp ànd nañu ak moom bokk yenu tiis wi dal ci kawam te musiba lum rëy rëy rëy ak lum tiis tiis bu ko ñépp bokkee xenu mu woyof moo tax mbir mi tiisoon na de ci lépp waaye ku ñëwoon démb suñ kër fan yi ngay foog foofu la dëj bi xewee ñépp ñoo ko bokk xenu ko ndoor ak ñun ba tax na lépp woyof na ba ñu jógee ne dañu jóg ngir gunge ko soppe yi ak xarit yi ma yàlla booleeg ñi am jot tey xam nga ne mooy bopp semaine bi nekk buntab liggéey bisab liggéey lu ëpp fukki oto bu ñu la ci toppee xam nga ni ñooñu kenn amul seen fay ndax bàyyi nañ soxla yu bari bàyyi nañ yitte yu rëy kon yal na yàlla fay ñu ñun ñépp lim ñu dëxal ci képp ku fekkee julleeg niiw poids bu toll ni jabalul Uhud nga xam ne yonent bi buy misaal lu rëy ñaareel rek dana tudd jabalul Uhud daj woo xam ne ay kilomètre la te nee na la cay feeñ boo ko comparé ak li nëpp dafa mel ni mbaxal na ci jëmm dana jàngale ci beneen hadis ne bu yowmal xiyaamee yéeféer yi seen la ya rek dana toll ni jabalul Uhud ndax mooy tax ñi attan mbugal mi leen yàlla nar a mbugal kon doj wu toll noonu ci poids walla nga jël ko saraxe ko ci yoonu yàlla yàlla nangu ko lu mu ci ñaar yi rëy na yàlla nañu ko yàlla boole defal ñun ñu fekkee julleegi yépp ak ñu amoon fekkee ko yàlla nañu ko yàlla boole defal ñun ñu fekkee rob yépp ak ñu amoon yéene fekkee ko yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def mbokk yu baax yi bàyyeekoo ndakaaru taal seeni oto ñii wan seeni bureau gannaaw ñii won seeni école gannaaw ñii won seeni magasin gannaaw ñépp ngir yàlla ak cofeel ngir yàlla ak kóllëre tax ñi ñëw tànki dem yeeg tànki dikk yëpp yàlla nay sippeeku bàkkaar yàlla nay sëfuwaayu yiw yàlla nay yéeguwaayu maqaama yàlla nay yëkkatikuwaayu daraja yàlla man na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def ñu mbokk lu baax yi ñu bokk ñoom maam balaa Abdoulaye Niass bokk ak ñoom maam Khalifa ñoom tamit ñi bàyyeekoo Kaolack bi ñu déggee xew-xew bi ba léegi nelawuñu lekkuñu yendaluñu ñi ci am jot tagg seen yi te ñëw tamit ànd ak ñun loolu ma ñaan yal na yàlla defal leen ko ñoom ñëpp ci barkeeb Seyduna Muhammad yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yal na ko yàlla def yal yàlla may wala muñ ci ay rawati na yaayam ndax dom ju goor yo xamne moy sa taw nga dem ba yaakar ne choono buma manon di dund léegi tay mu jeex ndax bu takke soxna rek ma genn ci waañ wi bo amé soxna rek dootuma dem tol sama jaaxaay dam sama samay sama neek ak defaraat ko ak bale kër gi yépp wàcc ma dem ba mu toll foofa yàlla jëlal ko boppam tiis na lool ci bàyyi ji waaye tiis na lool tamit ci yaay ji moo tax kon yaay ji tamit ñu ngi koy mastawu di ko ñaanal yàlla may ko xol ak muñ damm damm la yàlla na ko ko yàlla jangal yàlla lu mu jàng dootul damati ñu ngi koy jaale soxna ami saar mim nekkoon ak kër ma jibel ba muy jàng mu sonn ci moom lool taxawu ko lool jàppale ko lool ba mu bàyyeekoo ci moom la door a ñëw ndakaaru moom tamit soxnaa mi saar yàlla ko yàlla fa yiw ci barkeb Seyduna Muhammad may jaal tamit suñu mbokk kër nooy suñu mbokk mu baax di suñu soppee Samba yàlla jël ba kanam mu tombee Adi ñu ne bu ñu wanee gannaaw lijjanti kayit yi lu bari dana tardé mënuñ ko wan a wan gannaaw ndax démb boo ñëwoon kër ga da ngay foog ne fii la dëj bi xew tax ma yebal Cheikh Mouhamadul Basir ne ko seetal ci sa rakk yi ku mën a dem wutuñu ca dëj ba mu yebal imaam alxaaji Seexu Mbay mu dem taxawee ko taxawaay bu rafet waaye yàlla xam na ne suñ jëm ya mu ngi woon ndakaaru waaye suñ xol yépp ñu ngi woon kër mooy kon Samba tamit yal na ko yàlla xare aljana yal na ko yàlla may mbax li ma yéene woon mooy dama jàppoon ne balaa tusubaar danañ war a yegg si fii mën a jullee sëñ Haadi Njaay ma ne woon su boobaa di des ci ngoon gi damay dem kër nooy jaale ji door a ñibbi waaye yàlla nii la ko bëggee waaye bu yoon jeexul dox si ci kanam du jeex doomam a ngi nii nuyu léegi ñu jaal ko ko ñu ngi koy jaal mbokki kër nooy yëpp di ko jaal mbokki ba Mbayeen yëpp ndax ñëpp ay mbokkam lañ te suñ soppe la woon suñu xarit la woon tuddee nañu doom te ku la tuddee doom mënoo koo fay kon yàlla ko yàlla xare aljana maa ngi sant mbokk yi taal seen oto Alxaaji Keeba Njaay mii bu ko xamul dégg nga ko ñu koy dàkkantelee faayilul xayraat lu baax rek la xam ci lay xëy ci lay gont al hajj Omar Ñas moko ko taqdim ci tariqa bi yalla di ko bolé ñu motax lepp lu may dox lu ñor rek bo ma gisé da ko gis tax bi ma bi bam mu li lii dafa fekk mom mu ko dakaru fekk ko dëkkam kër musa waye dafa ne dana dagg sama yitté yi ko kër musa ñew da ñi dajee kër ma jibel ma ñew fekké ci bi tay bu ñewé lu mu guddi guddi dafa wara ñibi ñibbiwaat kon Keba yal na yàlla fay la yiw yal na la yàlla fay yiw Cheikh Tidiane Palane mii yaakaar naa kenn du ko laajte ci suñu xadara ba ku baax tabaarakallaahu bisab tam xarit bii ci la yàlla jëloon waajuram wa kon taalibi maam xalifa piir mu ñëw feddali taalibi googa bisab tam la njaboot bi wër ko mu ne leen ah leer na ma ne tey daal àllaaxira laay fanaan ni tax bàyyi xalifaa ngi nii ma jàkkaarloo man la jël keroog la ñibbi àllaaxira moom tamit mu feddali taalibe googa ak cofeel googa ci moom ba doom ji mujj am semaine bii passé maam xalifa la ko tuddee kon Cheikh Tidiane Palane yàlla ko yàlla jàppale Mohamed Gàppo nga ne ku ne dégg na école alwaar mu bokk ci école privé yi gëna baax dakar élève yu bari di fa jàngé di am seen diplôme ku xam sama xadara rek miin nga Mouhamed gakko moom timit mu wan école am gannaaw taal otoom and ak Mouhamed Sané ak ñi ñu ànd ak bàyyi ko dakar ba fii ñëw fekk si lii yàlla na fay leen yiwu Omar Touré noonu otom la taal sen mbokk la ndéem la dëkk hmm bayam boole ñu muy suñu mom moom tamit yi yitteem ñew and ak ñun Aliou ñaan a ngi nii doomu suñu baye ju baax ja alaaji Abdoulaye ñaan nitu yàlla ku màgg kooku leppam di alquran moom timit yoon woowa la xeeñtu mbax goga timit lay top bim mu li lii bàyyi na lépp ñi doon taxawé néew bi ci walu sang ko ñi war koo toppatoo ci la nekkon suñu rak suñu rak ju baax ji di Mouhamed ñas kenn mënu koo fay bi mu xeeb ba mu yëgee lii ndakaaru la ko fekk ndax moom mii laa waxoon na ko sax dangay ñëw demal ma kër nooy mu ne ma démb laa ñëw ndakaaru waaye su ma xëyee danaa ñëw dem demaat demaat Kaolack demal kër mu xëy ñëw sama kër ne ma ah kër nooy laa a ne ko ah tusubaar lañ ko war a jullee heure bi boo demee dangay fekk mu tardé yebal moom mii moo summeeku sang ko moo sang Adi ñu tëral ko fi ñu tëraloon baalaaj Ibrahima Niass ci morgo boo xam ne baalaaj Ibrahima moo ko fi daaw ne kuñ fi sangee doo dem safara booba mu summeeku moom sama rakk ànd ñu ak Mara Niass ànd ci at doomi baalaaj Ahmed Babacar yi ñoo ko tiim di ñeseen ñeseen ni kese ñoo summeeku sangu kon tamit yal yàlla fay leen yiw Aliou Bada doy balaji Babacar suñu xarit suñu soppi suñu lépp tey la bàyyeekoo Ndakaaru tal otoom and ak ñun alaaji Njaay mi jaay karo yi taal baye bàyyeekoo dakaru and ak ñun docteur Ndaw ngi ni sama soppi sama lepp mo dëkk ci wetu sama daara ja da dafa ne fo dëkk rek la bëgg dëkk mu dem fofa ut kër moo ma gën a yi ku feebar lay faj otoom la tané Kaffrine fekk ñu dakaru ñu and ak ñun su ma ko doon lim ëpp na fukki oto am na ku ñuy wax Cheikh Baye Wade di commerçant bu mag ci biir kaw euh, Kaolack moom tamit bi mu ko yëgee dafa taal otoom fekk ma ci kër ga taal otoom ànd ak ñu ñëw tay kon yal yàlla fay ñëpp yiw yal na yàlla nangul ñëpp ci barkeeb Seyduna Muhammad képp ko xam ne yàlla may na la nga ñëw ci dëj bii yal nay sa njot ci safara yal nay sa njot ci gàttu fan yàlla nay sa njot ci texeet yi ak lëndam ak bàmmeel ak wéetaay wa ak mbugal ma ndax yàlla baax na baax bu day ni am na jëmm yoo xam ne bu fekkee seen seen ak seen ak jullee yàlla dëkk ca garaase la ci safara jéggal la sa lépp yàlla na ko ci yàlla boole te loolu yaakaar nañ ko ndax yonantu bi ba muy lim juróom-ñaar ñi yàllay keral ëllëg bi ñëpp ñàkkee ker boole woon na ca ndaw lu sosu ci jaamu yàlla Hadi Njaay mii dafa judd rek nekk ci jaamu yàlla ñi ko xam ñépp seedeel nañ ne mos a ci ndaw bàyyam moo ko wax kenn mësu koo xam ci mbóosóor kenn mësu koo xam ci tappale kenn mësu koo xam ci dox tànk caaxaan lu mu la wax rek moo nekk ci moom kon jàpp naa ne ci baax ak yàlla jullee gi ñu ko bokk jullee yàlla mën nañu cee bàyyi may ko mba mayaale ñu ko ñun ñëpp yàlla ko yàlla def kon gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp tay ñi ma and ak lu gudi guddi guddi bëgg nañoo ñibi waan Dakar ndax buñu ñu wara liggéey kon nu jotaay bi gëna a rek ñing leen ni lor yalla yalla fay leen yiw fay suñu jigen ñu baax ñi soxna nday jallo ñi bokk benn baay def na Amérique lu mat presque ñaari at bër bër bu yàggul rek la ñew waye bimu mu déggee dëj bii tamit dafa yi yitteem yépp and ak ñun ñew ba fi ak soxna Awa cheikh ak mboolem waa kër ga yëpp kenn desut ñëpp ñëw nañu kon yàlla na yàlla fay ñëpp yiw defal ñëpp jàmm defal ñëpp sutura yàlla na fi lii gëj yàlla na yàlla xettali baykat yi yàlla ngeen am nawet boo xam ne ba ngeen commencé bay ba léegi mosu leen koo am ci gerte ci dugub ci mboq ba ci xaal kenn ku ne loo ji fas yéenee bay ko rek yàlla na si yàlla defal lu ci kawe sa njox ci barkeem Seydunaa Muhammad kàmb ak jafe-jafe gi baykat yi nekk yàlla na ko yàlla jeexal ren kenn ku ne am loo mosta am ci barkeb Seyduna Muhammad dëkk bi mag ñi yàlla na yàlla gën a guddal seen fan ci góor ñi ak ci jigéen ñi ndaw yi yàlla na yàlla gën leen a dëgëral yokk seen wërsëg yokk seen man-man yokk seen jàmm yokk seen sutura yàlla na yàlla dëgëral xalifa bi mu yàgg ci dëkk bi di ko jiite yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def dëgëral al xalifa Mouhamadul Bachir yàlla dëgëral tamit al imaam alxaaji Seexu Mbay ak mbooleeg njaboot ak maam Tafsir Moon Mbay ak njaboot ak maam sëñ Daara Seex Moodu yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def kon nag nañ jàngaat benn fatiha ñetti spri salaatal fatiha digal ko Seyduna Muhammad xettali ko ci mu jël ko jotalal ko Haadi Njaay li ñu fi dajale yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def allahumma